aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa molana muhammadil amin wa ala alihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibé yi ñu ngi leen ziyaare di ci nuyoo ak ziyaar bi saahibul fadila wala wasila sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaye noonu lañ koy ñaanale mboolem xalifa généraux ne ñu ah, joo xamante ne jàpp nañ ne dootuñu ko présentati ndax jëmm la joo xamante ne ah, borom la di bindkat euh, ci la koy def di sëriñ Ba Jili dëkk fii ci Touba moom lañ ñëw seet si tey ngir fas yéene waxtaan yi nga xamante ñu ngi bàyyi xel ak jullit ñi nga xamante ñu ngi bàyyi bàyyi xel Rafah TV ngir fas yéene waxtaan ak moom jëme ci wàllum xam-xam bi ko yàlla dénk ah, xam naa dama ko jox kaddu gi rek mu nuyoo bu nuyoo ba pare ñu doog a dugg ci laaj ak tontu yi aousubillah min asheytaan irajim bisimillahi rahmanirahim Cheikh Moustapha ñu ngi lay fay di sawar di toogaat ak yow di am mbégte bu baax di nuyu mbokk yi ñuy suivre ci Rafah TV comme ni nga ko waxee rek di jiital ci nuyoo bi euh, Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasarahu di ñaan suñu borom mu kàttanan ñu bañ mën a génne loo xam ne dana jariñ nit ñi incha allah. jërëjëf kon ñoo ko déggandoo muy nuyoo bu gàtt bu mat bu matale kon sang bi xam naa dañu la dugg rek ci li nga xamante ne moom mooy gis nañ ne sab liggéey léegi kenn dootu ko présenté ci dëkk bi ndax euh, ñi ngi dégg sa ay publicité si rajo yi euh, ñuy publicité jëme ci téere yi nga xamante ne yow yaa ngi koy bind euh, ndax am mën nga ñoo dikkalaat ci téere yooyu ndax nit ñi gën a xam ñi doon dégg publicité bi xam jëmm ji bind téere yi ak li wundu téere yi alhamdulilah xam nga xam-xam boo gis téere moo koy tënk moo koy denc euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne zakatul ilmi taalimuhu man laa yaalamu alxuraan wax ne wa amma ma yanfau nnaasi fa yamkusu fi l ard kon lépp loo gis rek dañ ko war a yaxal ci ay téere te ma seetlu ne jamono ji ñu bari dañoo màbbu jëm ci wàllu lasaraar nam ko lool nag euh, mu jëm ci nit ñi nga xam ne dañoo bëgg seen ajo faju ak ñi nga xam ne dañoo bëgg gëstu xam-xam bi loolu nag moo indi xaj na xam-xam bi bariwul waaye li nga xam ne suñu borom jagleel na ma ko moo jot koo dajale ci mag ñi muy jëm ci wàllu gént nga xam ne jamono ji wax ji bare na ci lool ak wàllu ramli ak wàllu seetu kurus nga xam ne ku ci nekk boo ko amee dana am yu bari yoo xam ne danga ko mën a defal sa bopp waaw loolu nag liggéey la boo xam ne tàmbale nañ ko incha allah dana am yeneen fànn yoo xam ne ñu ngi ci de danañ ko danañ ko génne ngir nit ñi jariñu ci ndax xam boo gis buñ ko yaxalul rek mën naa dem a dem ba day day rawatina nag xam-xamu lasar nga xam ne ñu baree baree bari dañ cee xaw a dañ cee xaw a nay tey li yonent bi wax xam moom génne ko moo koy moo koy moo koy moo koy yokk moo koy yokk ndax ma ngi dañuy wax ne maanaam euh, dërëm boo ko yónnee mën na laa indil li nga bëgg waaye du ñëwaat waaye xam-xam nag boo ko yónnee da lay indil da nga bëgg ba noppi euh, mel ni jugu fa xaalis it boo ko yónnee Eh, mën na laa indi la nga bëgg waaye du ñëwaat kon xam-xam joxe gi dafa am solo lool lool lool eh, loolu nag eh, xañ na lu ma tàmbali la ak ñeneen boroom xam-xam yi nag ñu ngir ñu bëgg ci bëgg ñu ñu gën ci liggéey bu baax ndax naw ndaw ñi bëgg nañoo jub bëgg nañ namm nañ baatin daal waaw war nañ cee gën a bind bu baax a baax a baax ñoo ko déggandoo muy euh, li nga xamante ne mooy leeral li jëm ci wàllum bind moom nga xamante ne moom lay bind lii di téere yi xamante ne day jàngale wàllum raml di jàngale wàllum gisaanim euh, ci wàllum kurus ak yu demee euh, képp koo xamante ne bëgg na xam bi xam ko mën na ñëw ci moom waaye tamit képp koo xamante ne it bëgg na gisaaneelu wala mu am gént ku ko jaaxal yëpp mën na cee ko ak moom léegi ma daal dugg nag ndax nee nga nit ñi ñu ngi màbbu jëm ci li nga xamante ne moom mooy lasraar dina baax nga xamal ñu lan mooy lasraar alhamdulilah xam nga lasraar baat boo gis dafa am cosaan lasaraar buñ koy jël xam nga baatu arab la jam u taksiir la maanaam mufrad bi da ngay wax sirru bu dee benn singulier da ngay wax sirru kon bu dee jamu da ngay wax al asraar mooy ay secret wolof di ko tuddee ay mbóot euh, léegi nag lasaraar euh, borom xam ne dañu wax ne ilmun ma fawqa sawrul aqli yaati min nafasi ruuxi aw min juhdil mujtahid xam-xam la boo xam ne benn day jóge ci Euh, suñ boroom ci ay ay ay ay boo xam moo xam ci ay ay ilham lay doon wala boog euh, malayka jox la ko wala góor yàlla jox la ko euh, wala boog nit ki gëstu ak gëstoom ba xam ci secret kon nag lépp loo xam ne sirru la rek moo xam zahiran la war a baatinan mën nañ ko tuddee secret comme ni ñuy wax ne asraarul kawni ah secret alam bi asraarul asjar secret garab yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu garab mën na xob xas reen mën nga ne asraarul kalaam bu tàmbalee ci alxuraan wala waxi gaa yu baax yi wala xasida yi sëñ bi ba ci jat sax yooyu yëpp ay secret la kon lépp bu ñu nee bu ñu nee lasaraar rek kooku dafa matale waaye nag lasaraar bi nga xam ne moom la nit ñi gën a xam mooy sëriñ boo xam ne day jëfandikoo ci alxuraan wala muy jëfandikoo ci ci ñaani gaa yu baax yi wala mu jëfandikoo ci sunna wala mu jëfandikoo ci ñaan yoo xam ne dañ ko koy ilham ñu gën a bari nag bu ñu waxee lasaraar xaj na seenum xel foofu lay jëm léegi nag su dee alxuraan moom euh, dafay kawe lépp ndax ni ngi ko suñ borom waxee ci xadisul xudsi li ko yonent nettalee ci xadisul xudsi dana suñ suñ borom ni mu gën a bindee fii waxam ji noonu la gënee mboolem wax yi kon nag li alxuraan ne maa farat naa fil kitaabi min shay yonent bi wax ne aya mujizatul quran lan tanqadi maanaam kiimaanu alxuraan baatinu alxuraan mënees su ko jeexal kon dañ ci gëstu ba keroog àddina tukki waaye alxuraan mënees su ko jeexal léegi nag jàng alxuraan ak jàng tafsir ak jàng ulumul alxuraan yi nga xam ne day tax nga xam ko zahiran bokkut ak jàng baatin bi mi ngi mel ni nga xam garab gi taxaw garab gi mi ngi taxaw waaye xamoo nan ngay def ba witti meññeenti li ngay def ba witti meññeenti yi nag loolu mooy baatin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne taallamu xuruufa abjada waylun li aalimin inna fihi min al ajaayib min al ajaayib waylun li aalimin jahila tafsiru maanaam dee leen dee leen gën leen gëstu baatin abajada abajada mooy mooy mooy mooy mooy mooy xurufu samaniya wa ashir mooy vingt-huit lettres yi nga xam ne moom lañ binda alxuraan yonent bi da wax ne gëstu leen ko ndax bari na kiimaan yi ci nekk waaw bari na kiimaan yi ci nekk mu wax feneen ne alxuraan benn xaraf am na baatin am na baatin ba muy juróom-ñaar yoon lu ko da koo lim rek waaye ëpp na loolu ngir jàngale kon alxuraan ku ko gëstu xam ko mën nga cee faj soxlay zahir mën nga cee faj soxlay baatin jërëjëf alxuraan euh, képp koo xamante ne gëstu nga ko mën nga cee faj soxlay saayir waaye mën nga cee faj soxla baatin ba tax na képp koo xamante ne bëgg nga jokkoo ak moom incha allah rabbi ci kanam tuuti dinañ joxe li nga xamante ne moom mooy numérom ngeen mën a ànd ak moom ci euh, lépp loo xamante ne li ngeen bëgg la ñu daal jàll ci bi nga xamante ne nag xëy na euh, moom itam da nga ci di yëngu muy li jëm ci wàllum xalwatu xalwatu tamit bëgg nañ nga baaxee ñu ko ak naka nga koy defee alhamdulilah xam nga xalwa ba tey baat bi mooy wéet xala yaxlu mooy wéet alxuraan mu njëkk wax ne watabattal ilayhi tabtilan ah maanaam del bereku jëm ci sa borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ci ay xuntu laata eh, wax yu bi ñëw ba wax yu sax fa la ko fekk kon bereku jaamu suñu borom loolu lu yàgg am la léegi nag léegi nag eh, aajo dafay ñaar benn bi nga yittewoo jëm ci suñu borom wa illaa nga yittewoo dara moo xam maxaama ci maanaam ajooy àdduna àdduna la wala aajoy àlaxira nga wet suñ borom ñaan ko wala nga ñaanal ko nit léegi ne bu dee xalwa nga xam ne moom la ñuy defal lasaraar moom benn dangay jàng xalwa lan mooy xalwa ba xam ci ci ban fànn nga koy defee su fekkee ci tur yàlla nga koy defee war ngaa jàng lan mooy asmaul husna su fekk alxawaatim nga koy jàng war ngaa jàng lan mooy al awqaaf nañ lañ koy duggee nañ lañ koy génn nañ lañ génn rawaan lan la bëgg lan la bañ boo gisee ñu bari di gaañu ci ci ci xalwa ñàkk xam gi la ndax bala nga dugg xalwa war ngaa xam man listixaar mu njëkk bala nga dugg xalwa war ngaa xam lan mooy listixaar listixaar pour nga xam ko mooy nga xam firi gént nga xam firi gént mooy nga xam rawaan yi niñ lay dikkee ak niñ lay feeñoo ak niñ lay waxee bari na ko dugg xalwa rawaan yi dañ koy artu ci biir du xam ne art nañ ko mooy waral muy gaañu bari nañuy dugg xalwa dañuy génn duñ mën a wax euh, ka leen di duggaloo xalwa dara lu leer loolu yëpp ñàkk ñàkk ñàkk xam gi la ndax xam-xam moom boo ko boo ko xamantu baaxul da ngay xam bu wér xam-xam moom boo ko xamut pour nga jariñu ci ak pour nga jariñu ci day jafe waaye xalwa moom su fekkee jaar nga ko ci yoon képp koo ko defal dama ne xalwa su fekkee jaar nga ko képp ko def ko defal moom ci boppam moo ko war a njëkk a gis bu tëddee guddi moom ci boppam moo ko war a njëkk a gis waaw moom ci boppam benn daanañ ko ko ci ay nelaw moom xam ne kii mi ngi koy ñaanal waaw amul képp ko xam ne man dama lay defal xalwa loolu laa lay wax bala maa yeggal yow ci sa jëmmi bopp daan la ko misaal nga xam ne kii mi ngi ci man waaye xam nga dugg xalwa ni jox la xaalis bu bare ba pare nga dugg xalwa naan ko dana baax loolu moom xam nga loolu doy na jamono ji wax dëgg yàlla loolu moo ci bare waaw waaw xalwa moom lu metti la loo xam ne euh, bu fekkee nit ki wax dëgg yàlla dala wóolu ba jox la alalam war nga ko wax nag lu wér waaw war nga ko wax lu wér Mm-hmm. léegi xaloo googu xam sax ci la ñuy dugg ci lii di rawxaan rawxaan gis nañ nit ñi dañuy wax naan diw am na ay rawaan ak yu lan nga ñu mën a ay rawaan xam nga booy jàng am nañu ba buntu bu ñuy tudd al istiaara mooy ab léegi nag rawxaan eh, lépp lu am dafa dafa am alaaqa ak ruux kooku am na rawxaaniya moom na alquran di wax ne wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdi rabbi kooku rawxaan rawxaan day am foo xam ne day firi baatin masalan boo jëloon kaas bi di tari alxuraan di tari alxuraan di ci tifli di tari alxuraan di ci koo xam ne biiram day metti nga jox ko ko mu naan biiram sedd ndax alxuraan yi ci ndax eh, baat yi nga doon wax moo rot ci moo rot ci eh, ndox mi déedéet du baat moo rot ci ndox mi rawxaaniyatul quraan moo rot ci moo rot ci ndox mi boobaa baatin lay firi nit ki bu jàkkaarloo yow catu la wala boog mu wax la wax joo xam ne wax ju na lu la naqari la nga daal di xam fi saase ndaw wax jooju mu wax moo la dal nga daanu wala boog wax ji ci boppam moo moo def taasir ci yow nga daanu déedéet wax ji ci boppam moo def taasir ci yow nga daanu kon baatin baatin yi wax ji moo la dal léegi fooku piri la ci roxaan léegi nag dafa am roxaaniya boo xam ne tamit nit ki su nelawee comme ci gént Ah, ah, nu ñuy tuddee naw mu suura ni ko aay boobu inna allahu yatawaffa al anfusa hiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qadaa al mawt wa yursilu al uxra ila ajalin musamman inna fi zalika la ayatin laqawmin yatafakkarun kooku naw mu suura la léegi nag loolu mel ni day jóge ci nit di wër ci aalam yi di gis hmm? ba tax ngay mën a jàpp boo yeewoon na man kat géntoon naa nangam ak nangam kooku tamit rawxaan la waaw léegi wolof nag dana tudde kii borom rawxaan la fekk boobu rab la ci jublu kooku kooku rab ci jul wala mu ne kii borom mi àndandoo la am na rawxaan ñuy tudde rawxaan tamit ñu tudd ko xarin am na ñoo xam ne xarin tamit ay àndandoo des na ko waaye rawxaan kon rawxaan la baat bu ñuy àbb la boo xam ne euh, dañ koy wax yu bare bari yu wute moo tax ñu bari mënuñ ko euh, ràññale eh, lan mooy rawxaan euh, lan mooy xuddaam asmaullahi tamit yi ngay liggéey am na ay rawxaani yi boppam yoo xam ne ñooy def xidma tur wi am na ay xuddaam yoo xam ne ñooy tur wi xudaa moom fuñ ko tudd rek jismaani la maanaam benn day nekk jinne benn wala mu nekk nit nga xam ne dalay lay xidmaam su dee ruux nag su dee tur yàlla yi foofu rawxaanam rawxaani yaat rawxaani yaatam ñu ngi ci jublu al malaika Ah, kon ñoo ko déggandoo képp koo xamante ne yaa ngi ci euh, yaa ngi bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy émission bi xam nga ne bi ñu tàmbalee ba léegi li ñu fi wax lépp njariñ lekk la ndax euh, gis nañ ne xam-xam la bu leer boo xamante ne ci jëm gi seel la jógee ah, léegi ñu daal dem ci li nga xamante ne nag daal la plupart ku yàqu ku yàqule ku moo la yàqal muy cat ndax bëri koo xamante ne dana ne ci moom sax du ko xam waaye mu nekk loo xamante ne lu nit ñi xeeb la te lu rëy la maanaam cet naka nga naka nga ñu ci mën a xamal alhamdulilah xam nga cat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko njëkk a saxal ndax yàllaay def ci nit ñu am baatin muy defar yàlla def ci nit ñu am baatin boo xam ne day yàq day am ci nit ñi loo xam ne duñ dégg mu yàqu am ci nit ñi loo xam ne duñ gis yéene ci ak yàqu mu yàqu am ci nit ñoo xam ne duñ tudd seen catal làmmiñ mu yàqu ndax yonent bi sallallahu alayhi daana ci muslu wax na ba tey al lisaanu xaqun wala aynu xaqun law kaana shay'un saabiqul qadar la sabaqatu al ayn su fekkoon na am na loo xam ne day fanq al qadar boobaa ayna lay doon cat moo wax ne cat dana dana dana dana dana topp gëléem bañ ray ko xataa baqa bañ ray ko kon cat bari na lu nit di yàqu loo xam ne cat ko koy yàq ci jamono yonent bi nag ku masaana kuñ masaana catu moom yàlla may na ko xam-xam boo xam dana xam ne kii moo ko catu bu ko defee mën na la demal nga sangu comme li daloon xisatu amir bi mu benn saaba dana ko demal nga sangu raxas maa taxtal izar loolu waxi sutura la maa taxtal izar mooy kanamam mooy sàkkaram day jàpp jàpp benn benn raxas ko ci ndab raxas sàkkaraam jox ko mu sangu mu wér loolu la yent bi dafa diggan ci xisata amir jamono bii kuñ catu yow nan ngay xamee ne kii moo ko catu ak kan nga ñemee wax demal nga jàpp raxas sa kanam jox kii mu sang ñeme woo ko xam nga loolu amut ñeme woo ko